di oto bu bees tàkk nag boo xamante ni euh, boo waree réew mi ba mu daj doo ko fi gis yaakaar naa ni benn bii la di oto kilifa ngeen gis confort boobu ci biir mu mel ni rek xaw ma surprise la ko euh, gars yi di tuddee xaw ma cadeau ndax lu lu ni mel dañ ko seetlu woon ci màggal gi waaw soxna Batoor indil woon eh, baaxe woon soxna si di soxna Aida Saliou moom Serigne Béthio benn range eh, ngeen gisaat ci gàmm gi lu lu mel noonu tey kon daal gaa yi mu mel ni rek eh, waaw comme ni ma leen ko waxee mbokki cantaaku nii daal ak njabootu sëñ Béthio gi ah, ñu ci bëri Euh, ñoom daal ñu ngi dëggal ñu ngi yeesalaat seen seen diggante ak seen becco ca wax jam leen waxoon ni leen aydaay man maay ayda waaw ñu ñu jàpp ni rek kon moom mooy dëggi-dëggi seen becco yéen a ko gis noonu oto baa ngi noonu macha allah. ko ziyaare oto boobu nag mooy kenn ci jëwriñ yi muy universel jëwriñ Idrissa sàmb Cofeel moo ko baaxee oto boobu moo ko ziyaare daal Bali sañi bara